asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah vendredi 6 décembre 2019 ñu ñëw ak yéen ci yi yëglekaay yi nag tey moo xam sunu làmb la l'observateur record la tribune ba ci Leewtoo TV fu nekk rek bi ñu xëyee tey fekk nañ fa ay xibaar yoo xam ne daal mbirum lamb la bu dee yëglikaay bi di sunu la moom la mu xëyee lenn la Gaston Mbengue la ñu xëy wan wan ñu Modou ak Balla yoo xam ne ñu ngay tuus mu mel ni ki nag yëglikaay bi daal dafa xëy ñëw sampab laaj nekk ndax Gaston Mbengue est-ce que dellu si waatam naruta nekk loo xam ne kon bu amee mooy sauver li nga xam ne mooy lamb ji waaye rawatina ñi nga xam ne ñooy VIP bi mu mel ni ki daal retouru Gaston moom ak dikkaatam ci lamb ji fi mu nekk nekk nii gaa yaa ngi koy xaar te bu amee daa mel ni daal dina jural njëriñ ñi nga xam ne ñooy mbër yu mag yi mu mel ni la yëglikaay bi di sunu làmb xëy tay sampub laaj ngañ jaañ na li ba leer de ak dikkaatam dana baax de ndax nag na mbër yu bëri yu mel noonu daal moom kii di Gaston Mbengue moo leen wane ba public bi xam leen kon nag dikkaatam moom lees di xaar la ngañ jaañ moo wax loolu bu dee Palla Diop itam moom nee na daal li leer ba leer daal ak dikkaatam moom dina amal trop waa làmb njariñ te lu ñuy sali lay doon te dina baax ci li nga xam ne tamit moo di VIP booy kayri tamit bëre ba bàyyi bëre moom tamit daal nee na nouvelle boobu moom bu amee wala mu nekk daal lu baax a baax lay doon lu ama am njariñ lay doon moom yëglikaay bi di sunu làmb xëy tey ñëw di wax ci lu mel ni ki noonu mu mel ni ki làmb jooj ñuy wax nag pour Gaston dellu si ci moom yëglikaay bi di l'observateur dafa xëy ñëw ne leen làmb ji day jàpp leen seen làmb jooju ngeen di wax seeraay ga moom metti na lool maanaam làmb ji daal li ko tënk fi mu nekk ni daal moo di mbirum ak seeraay yëgli yéenekaay bi di l'observateur moo xëy tey ñëw ñëw ci ci lu yaatoo yaatoo yaatu jàpp na ne daal fi mu nekk nii moom làmb ji dafa seer lu jëm ci wàllum sport yi jëmale ci sponsor yi lu seer a seer la moo tax daal mu jàpp ne daal est-ce que mbir mi sax mbirum économie la comme niñ ko jàppe yëglikaay bi di lobsu moo xëy di ñu ko wax ak itam di wax dette bi nga xam ne wala bor yi nga xam ne Gaston da koo yor te mu toll ci sept cent millions mu mel ni ki daal kon làmb ji mu nekk ni moom ay jafe-jafe metti na lool yëglikaay boobu moo xëy wax ci lool muy lobs bu dee la tribune la tamit sorewul lu mel noonu moom tamit daal la mu seetlu mooy raarte yenn mbër yi ku mel ni Eumeu Sène nga xam ne raar na bu dee Modou Lo moom gis ko sax fi mu nekk ni lu jafee jafee jafe la muy beneen VIP boo xam ne yëglikaay bi ne daal ñu ngi koy démarché ngir mu bëre jéeg Bombardier ca Mauritanie muy Gris Bordeaux mu mel ni ki nag Gris moomu daal donte ñu ngi moo di Ama Baldé wala Boy Niang ñooñu daal dafa mel ni ci mën a doon soo ñëwee tamit pare na ngir jàmmaarloo ak yow yëglikaay bi di sunu làmb xëy ñëw dina ko wax keneen koo xam ne moom fi mu nekk nii combat mag la bëgg ginnaaw bi mu nekkee ci li simple bi di ci wane boppam moo di pakala bu mbuur xëy na daal di wax ay dëggam moom daal la mu xamle ne na combat bu mag a mag moom la bëgg ngir am ko jongante ko ki nga xam ne moom am na combat ba ñu régulariser ko te mu war koo bëre muy abu ñaasi yëglikaay bi ne daal bras droit Siteu bi moom li ko war ci diggante mag Tapha Gueye 2 mooy ndam kese ne na loolu daal mooy li ko war bu ko defulee moom dina metti ci moom ndax nag yëglikaay bi ne yoon ma mu nekkoon di dem ka ko stopé dawut atum 2018 moo di sal bawal moo tax yëglikaay bi jàpp ne daal moom abu kon fi mu nekk nii ndam lu ko war a war a war la ci combat bi nga xam ne nii daal ca la jëm beneen combat boo xam ne nii moom ña ca jëm ci dimanche ji lañ ca jëm muy diggante bulldozer ak ki nga xam ne nii liggéey moom moo di bus de mer numéro 2 mu mel ni ki nag Pape Diagne Seras moom mu nga xëy di ca wax nee na bu fekkee am na favori daal kii di brise de mer wala boog bulldozer mooy favori waaye la mu nekk favori nag moom lu lese la maanaam daal te lu baree baree bare yëglikaay boobu moo xëy ñëw tamit di ñu wax lu mel ni ki noonu koo xam ne mi moom fekk nañ ko ci record muy dëkk ay mbër muy Ibou Ndiaye Obali Obali daal la mu xamle nee na Jokkel wala Baara Ndiaye bu Faas wala Fëgala daal la ne ñett ñi daal ku ci ñeme ñëwal sama avance wala nga daane sama ndën su ma ko sampee ma defanteeg yow ba mu saf sap moom moo xëy ci yëglikaay bi record di wax lu mel ni ki noonu keneen koo xam ne tamit gis nañ ko ci record mu mel ni ki moom licence am ba koy may ngir mu mën a bëree nag nekkum mbër daal dina ko renouveler muy rëg-rëg yëglikaay bii di record moo xëy ñëw di ñu wax lu mel ni ki noonu waaye mu mel ni ki tamit ci lamb ji nga xam ne nii daal moo di lamb simple ja tamit nar naa yëngutu ndax nag yëglikaay bi di sunu lamb nga ñuy xamal daal le 18 décembre moom ca Mbour Yaxya Jóob Yékini teg na fa misub ñetti millions waaye tamit li leer ba leer daal weekend bi itam daal nar naa jax lool yëglikaay bi ñëw na tey di ñu ko wax mu mel ni ki daal le 6 ji bala set daal xaas bu moom 700000 francs teg nañ ko fa yëglikaay bi moo xëy ñëw dina ko wax Gris 2 moom ñu ngi ko fekk fa nga xam ne nii daal moom moo di ca Leewtoo TV muy wax ci ki nga xam ne moo di rëg-rëg waaye tamit na mu daanoo ak la ko daan waaye mu ngay wax ci leneen loo xam ne tamit ñeel na daal moo di les ci carrière am ñi mu war a bëreel moom Gris 2 moo xëy di wax lu mel ni ki noonu mu mel ni ki nag tey la ay juma moo tax ma gis tonton Jaw ak ñetti morsoom mu nga weex tal aj mbaxana ma na ma ko daan waxee tonton Jaw taalibe Seex xam nga moom nag da koy defar ba mu baax aj ba mu kawee jaw borom ADN jaw borom Fass jaw borom asalem waaye jaw borom Leewtoo TV sax laay wax nag. mbokk waa Leewtoo TV ñu leen nuyu di leen gërëm di leen sant Babacar ngeen àndoon si revue de l'arène bi ñu ànd ak yéen si jàngatu arène Babacar di la ziar si àjjuma ji. maa lay fay Ndeye Koumba Fall di la ziar ci àjjuma ji di ziar internetu Leewtoo TV yëpp di leen nuyu di leen ziar di leen ñaanal jàmm si àjjuma ji te di ko saaku si ñoom. Amine Babacar ñoo na ak sunu laam sunu laam na dañoo ñëw nag ne def benn samp laaj ne Gaston est-ce tey du nekku serveur VIP yi euh, ndax ñoom am na ñu bëre ñoo xam ne fas yéene wuñu ren tëgg seen euh, takk seen yàmb Babacar. maanaam daal moom mooy ki nga xam ne nii bu ñëwee dina nekk kii sauvé mbir yi wala dina xëpp ci daay gi sa ndox ngir mu fay. ah waaw loolu daal li am solo mooy moom comme lu ma doon wax rek yaakaar naa tey ci làmb amatut lu mu ci mën a prouver. moom Gaston Mbengue parce que lu tax mooy li ci war a def yëpp pour mën dakaa def lenn nag mën naa nekk comme problème am ñu ne kat promoteurs yi nangam jafe-jafe wala mbër yi problème mu combat mu jóge fële ñëw loolu moom défi la boo xam ne bu ñëwee dina ko relever parce que tamit actuellement yaakaar naa ne amateuru làmb yi soxla nañu gis combat yu mag taxaw mbër yu mag yi tamit soxla nañu ak am ay combat parce que tamit li may wax rek mbër moom boo amee combat di bëre ngay nekk mbër mais soo amulee combat bëre wu mën mën mën mën nga sax ba bañatee nekk mbër kon suñu papa Gaston bu gën gënee yàlla na ñëwaat ak jàmm ndax itam wax dëgg yàlla waa làmb soxla nañ ko te gis nañ bi mu mujjee ñëw li mu indi woon defe naa ne am na lu bëri lu mu yëngaloon ci làmb muy diggante Modou ak Balla Gaye Babacar Journal aussi mu ngi nii xalam xamal ne kii di Gris Bordeaux ginnaaw ni nga wax ni nga dox combat am ak Bombardier waaye moom nee nañu waa Fass daal nee na euh, il n'exclut pas ki nga xam ne mooy Ama Baldé wala Boy Niang mu ba tey loolu war na mën a nekk donte mook Bombardier làmb la revanche la a fayu te bomb loolu ci xelam moom buñ koy doxit du ah, nañ dëgg seen diggante ak Ama tamit defe naa ne Sénégal yi bëgg nañ Gris Ama waaye tamit bëgg nañu Gris Bordeaux Boy Niang parce que loolu lépp ay combat la yu di Gris Bordeaux su amee itam yaakaar na dina neex amateuru làmb bu baax a baax bu mu ci am ci combat Babacar suñu jógee nag suñu laam dañuy dem fi nga ne mooy record record nag moom daal nee na même su fekkee sax mi def lutte simple waaye tamit mi ngi yëngu tamit si bëree dóor bi nee na nañ ko jox jokkeel Baara Ndiaye wala fëggal waaw Obali loolu la xëy wax tey ci journal record kani moom daal ñooñu la sampal ndënd wala ñu ñemee nañu simpi ndëndam muy Baara Ndiaye muy fëgala wala muy ki nga xam ne mooy jokkeel waaw làmb nag noonu la maanaam olof dañu du ak maas mais dabante la te tout le temps yow mbar mi nga xam ne da ngaa bëgg dem ci kaw ñi nga xam ne jàpp nga ne xaw nañ la devancer ñu ngay bëgg jànkonteel Obeuly itam yaakaar naa ne lutte simple moom kenn du ko ci présenté donte lutte avec frappe itam yegg seegu ci xëy na ci niveau bi nga xam ne dëgg-dëgg ci lañ koy xaar mais comme li ñuy wax rek doomi ñooy moom jaarte ñaanal euh, rëy da nga ko ñaanal gudd fan rek te Obeuly yaakaar naa bu yàggee ci làmb ak lancé yi mu nekk nii xalaat naa ëllëg fu mbër di yegg war na fa mën a yegg keneen ki nga xam tamit journal bi xëy na tamit euh, wax si moom muy rër rek mi ngi wax ni ngi wax ni daal lu simple ni ngi ko léegi nu am gan gan gu rëy sax nee ñu euh, renouvelle na démb licence am licence bëre dóor ak euh, ak ak licence bëre simple Babacar waaw waxoon na ko de ba ma ko nee ndax da ngaa balit simple mu ne waxuma la ko de waxuma la ko bàyyiwuma lit simple waxuma la ko kon loolu bu ñu xëyee gis ne que renouvelé na su dóoram ak simple am defe naa loolu tamit luy neex amateur yi lay doon ndax rëg-rëg dama naan tey ci lit simple moom xorom la ci su ci wàcc see moom amateurs dañu koy sopp lool te yaakaar naa itam ah ci kanam musique ci kanam bëri na 10 millions dégg nañ ko fi ak Jax dégg nañ fi ay 3 millions ak yëkki nii ak yeneen ak yeneen yoo xam ne nii te yaakaar naa ren mbiri dina gën a yëkkatiku noonu kon defe naa itam daal ñu ngi koy wax mu ñor ndax gaa yaa ngi ci biir waaw. xaj na si daal euh, suñ jógee nag li nga xam ne mooy record nañ dem fi nga xam ne mooy tribune tribune la ñuy xam la ñuy xamal daal ne en général euh, via ñaari mbër yi ki ki nga xam ne mooy Modou Lo ak Eumeu Sène dañoo tàmmoon di bëri le 28 juillet maanaam noonu tëj euh, làmb ji nee ñu nag. ban promoteur ñu yaakaar yi ñoom daan leen tëgg ren balaa le 28 wala boog le 28 juillet. waaw ak réer bu ñu réer wala raar bu ñu raar te ngeen gisul leen waaw ku leen di tëgg balaa le 28 juillet ah waaw loolu moom comme ni ñuy wax rek promoteur yaa ngi fi Modou ngi fi Ama ngi fi xëy na balaa le 28 juillet ñoom ñaar du ci ñàkk ko am combat boo xam ne ci date boobu nga ko war a mën a bëre parce que la plupart mooy faral ñu bàyyi xool noonu ba xam rek fu affaire yi di mujjee daal. ñu dem nag jeexalee si observateur te tamit dafa fël si làmb moom nag mi ngi laaj ne euh, li nga xam ni problème financier yi cachet yu rëy yi cachet yu mag yi nga xam ni VIP ñoom lañu tàmmoon di fayeku est-ce que léegi ñoom loolu du xaw a sonal VIP yi parce que soo moytu ren du ñu bëre ndax cachet yu ñu laaj dafa bëre te promoteur yi attanuñ ko sponsor yi tamit attatuñu loolu cachet waaw kon daal li li am solo comme loolu l'observateur wax liñ daan fayeku seer na promoteur yi mënatuñ ko sponsor yi attanuñ ko kon li fi des mooy jéem a wër taabal ji parce que ay woo gis a koy fay comme nag mbir mi mbir la moo xam ne nii ku nekk daf laa laal ñoom ñi ko séq ñëpp wala ñi mu intéressé ñëpp ci làmb nañu toog waxtaan ku ci ne ñu xool li nga xam ne nii moom la jamono ji laaj méngoog moom ñu xam ne bu ko defee dina mën a sotti parce que tamit lu olof wax rek ku nekk la nga am ngay duggee ji marché loolu daal moom fi mu nekk nii pour man moo ci nekk comme solution Babacar na si kàddu yooyu la leen di tàggoo di leen jox dig daje leen incha allah mais balaa boobu may nuyu sama yaay Mansour sama doom Mouhamed Diouf nuyu astandine depuis Italie chéri Khadija ki nga xam ne mooy Asek chéri Khoudia Seck depuis du ki nga xam ne mooy Mbaye Sey depuis Ouest Foire ah, ki nga xam ne mooy Abdou Gueye euh, Pape Site depuis les États-Unis di nuyu ki nga xam ne mooy Aïda Diouf ki nga xam ni mooy aussi Aïcha Faye madame Niang Babacar. waaw di nuyu ñëpp di ziar ñëpp ñaan ñëpp jàmm rek waaye di souhaiter sama benn rakk. da doon feete démb wax Siteu Bamba Touba dëkk fële ci jàmm gën si gàmbaaw na ko yàgg feete démb la doon feete anniversaire am le 5 décembre bu baax a baax di soppee Siteu di nuyu itam ay yëpp ñoom Laat Jóob ak gaa yooyu yëpp waaw so fan Siteu yëpp ñoom di nuyu tam parce que tamit dañuy topp Leewtoo bu baax a baax a baax a baax di nuyu képp koo xam ne daal yaa ngi ñuy bégee Louis Louis Louis Senghor tamit sama jigéen madame Diouf série docteur Macoumba Diouf maa ngi koy nuyu nuyu borom këram docteur Macoumba Diouf mi di nuy ñëpp ñi nga xam ne daal ñu ngi ñu suivre à travers Leewtoo TV di leen balu àq bu baax a baax a baax ci àjjuma ji mais tamit di nuyu sa séer bu bees mu la wutal muy Abdoulaye Mbaye depuis Atlanta ba leen di incha allah